tiis ak naqar ñeel ñi nga xam ne ñoo nekkee ci njurul yi ñi féete ci daara Serigne fallu fal bu am di Yacine moom mi nga xam ne doom la ci Serigne Assane Fall kii ab Baye fal la nu fekk kon ci yoon wi nu dóor ko dóor yu méttee métti ñi nga xam ne ñoo dajeek moom lañu gën a nemmeeku mooy ay jaasi ci boppam lan ko gor ci bopp bi ci yaram bi ak ci tànk yi ba nu gis ne kon tuute des mu ñàkk bakkanam ci saa si lan ko rawale yóbbu ko ci hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba Dakaractu mi nga xam ni saytu na xibaar bi xam na ne kon jot nañ ko defal opération ba am na nañu yaakaar ne mën na am bakkanam sowe jéye ji ñaaw lool ndaxte li nga xam ne gis nañu ko daal gëj na am ci dig digal bi teewul ñi nga xam ne ñooy ay kilifaam daal dinañu xaatim benn plainte yóbbu ko ci yoon na waaye di am yaakaar ne danañ teg loxo ñi nga xam ne ñoo def bii ñaawteef